asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général ku lu murid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Sidi Mbàkke di xalifa sëriñ Abdoulaat ak mbooleem njabootu sëriñ Abdoulaat Mbàkke yàlla nañu fi yàgg lool te ànd ak wér ñoo leen di yëgal màggaluk sëriñ Abdoulaat Mbàkke ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ci weeru suleet dëppook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korité sëriñ Sidi Mbàkke ànd ak mbooleem njabootuk sëriñ Abdoulaat di ko fàttali mbooleem njabootuk Maamaara Mbàkke waaye di ko fàttali nag mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo di njabootu seexi sëriñ Tuubaay waaye di ko fàttali mbooleem julit Mouride yi di ci woo itam mboolem turandooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad yi ak fu ñu mën nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew waaye di ko yëgal mbooleem kilifay aada yi ci njiitul président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak mbooleem gouvernement bu Sénégal di ko yëgal itam mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo di parti politique di ko fàttali jullit yëpp di ci soññu taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn comité d'organisation màggaluk Serigne Abdoulaye Mbacké ànd ak commission culturelle bi ak mbooleem kuréel yi ci di soññee nag ci njàngum alxuraan mi xaside yi di benn fan ci weeru sulet dina am table ronde bu am solo boo xamante ne bii daañu ko amal

jàngat discours Serigne Abdoul Ahad Mbacké gannaaw bu 17 jotee ci kër Serigne Touba Serigne Abdoul Ahad waaye ñu di leen fàttali ooleem seeti Serigne Touba Serigne Abdoul Ahad ñu baaxoo amal bu door 20 waaye atum ren nag ñu dara jaale ko Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Touba waaye bisu màggal gi bu ñu demee ba 19h daañu amal cérémonie officielle bi ni ñu ko baaxoo amalee ci kër Serigne Touba Serigne Abdoul Ahad mbokk yi bis baa ngi noonu Serigne Sidi di di ci ñu ko dundal ci alxuraanu karim xasiday sëriñ Touba ak lépp lu ñu baaxoo def ci ak ñaan ci bis bu sell bi waaye ci biir dëkk bu sell bi di Touba ci kër njabootu sëriñ Abdou Lahad ak mbooleem taalibe fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa